ñaari ñu dajale fi ñaari fan pour euh, jàngat li nga xam ne wane li ñu jot liggéey ci at bii nga xam ne mooy at bu mujj ci projet bi waaye aussi ci juróomi at yi nga xam ne projet bi mu ngi doon wéy fii ci biir Sénégal liñ ci mën a jàpp mooy tey gis nañu ne dañ doon liggéey ak ñaar fukki kuréel ak juróom yoo xam ne yamuñu ci ba ñuy ci am-am yamuñu aussi ci expérience mais kenn ku ci nekk la nga xam ne euh, lan lañ la jàngal fii euh, sotti nañ ko te loolu dafay wane ne tey mun nañu boole ay kuréel yoo xam ne euh, war nañu mën a liggéey ci wàllum ak ak yelleefu jigéen dooleel leen ba nga xam ne kenn ku ci nekk war ngaa mën a dem fu kawe loolu nag moo tax tey ñu ne gis nañu ne ci ndimbalu gouvernement du Canada. suñu kuréel yi tey yegsi nañu ci niveau boo xam ne tey lépp luy document lu ñuy laaj pour mën a répondre si benn appel à proposition ñoom boo leen ko laajee am nañ ko bu weesoo ab bu weesoo document yooyu tey am nañu gis-gis bu leer boo xam ne ci naka la ñuy mën a def ba mën a am xaalis bi nga xam ne moom mooy tax ñoom ñu war a mën a continuer di exister en tant que organisation beneen fànn bi aussi mooy ñoom ci li nga xam ne moom la liggéey ci wàllu offre de service mooy lii li ñuy yëngu naka la ñuy def ba loolu gën a ànd ak xarañteef ba nit ñi gis ne lii kat ab lu bees la te dafay ñëw pour euh, indi ay coppite loolu aussi am nañ ko am na nañu aussi liggéey bu am solo bu ñu def jëmale ko nag ci wàllum plaidoyer bi bu ñu xoolee ne plaidoyer bi ne ñoom dañ ci doon liggéey ci ñetti fànn ba nga xam ne euh, ñaar yi jëmoon ci wàllu code de la famille ak ñetteel bi jëmoon ci wàllu li nga xam ne moom mooy pétrole ak gaz mais tey fu ñu fëgg rek gis nañu ne am nañu ay kuréel yoo xam ne dañu taxaw taxaw parce que am xam nañu yoon bu ñu jëm te ñeme nañu tamit yoon bu ñu jëm donc ñun ñu jàpp ne projet bi am na lu mu def si ñoom. li ci des nag mooy ñoom naka la ñuy def ba gën a mën a taxawaat ba nga xam ne seen liggéey dañ koy gën a ñongal te defe naa ne loolu aussi mooy nekk li nga xam ne euh, ci at yi ñu jëm ñoom si loolu la ñuy gën a nekk mais équipe bu projet bi ci juróomi at yi bàyyiwul benn yoon lépp loo xam ne waroon na ko def pour gën leen ko dooleel rek jox na ko kuréel yi waaye kuréel yi tamit delloon nañu li nga xam ne loolu lañu buggoon ndaxte ki la fekk yoroo dara mu fexe ba jàppale la ba nga am siège ba mun a taxaw ba tey ngay am yeneen partenaires yuy ñëw kon nag mun nañu ne foofu am na lenn lu fa ne. ëllëg bi nag ñoom ci li ñu jàpp mooy euh, comme projet bi daf leen bàyyi li nga xam ne moom la ñuy wax le fonds commun pour la voix et le leadership des femmes. muy benn fonds boo xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo koy gérer fonds boobu nag ñoom war war nañ ko gën a dooleel te ñoom xam nañ ne fonds bi war naa gën a yokku te bu yokkoo pour ñoom rek waaye dañu war a lëkkale yeneen i mbootaayu jigéen association yu fi nekk ñooñu tamit euh, mën ci di ci fond boobu di ci am ay ressources pour di def ay activités waaye ñoom tamit nee nañu liggéey bi nga xam ne moom la leen projet bi indi woon ba nga xam ne ñoom tàmmuñu woon di liggéey euh, ñoom seen biir kenn ku ci nekk da nga daan demal sa bopp dañuy gën a waat seen bopp ba nga xam ne bu ñu gisee ay appel à proposition dañ ciy ànd di ci répondre di di gën a faire avancer la question des droits des femmes